aouzu billahi min asheytaani rajim <clears throat> salawatullahi wasalaamu alayhi euh, mbokk yi ñu ngi nuyu fii ci télévision Prestige Thiès Thiès Prestige euh, nekk fii ci Thiès waaye nag di émettre fu ci àdduna bi ñu koy ci net bi di ko seetaan tamit ci télé yi nekk ci Thiès ak li ko wër <clears throat> bu baax ñëpp ci weeru tëdd wi weeru mag wi di weeru rajab rajab nak buñ ko day wax muy weer yi nga xamanteni ci la rasulullahi alayhi salatu wasalaam jóge won fi ci mak jëm ci Jérusalem di bayt al maqdis jóge fa jëm ci borom subhanahu wa taala sunu borom teral ko teraanga ju mu musta teral kenn te dootu ko teral kenn mu toog ak boromam waxtaan kooku loolu kenn musu ko am yàlla wax nak nit mu yonent yàlla musa alayhi salatu wasalaam waaye réceptionné nit nag mu toog ci saalam yàlla di wax muy dégg rasulullah di wax muy rasul rek ko am loolu ci wér wi laa moom yàlla jox ko fa cadeau ak tawfiix yoo xamante ni buñ ko sàmmee te bàyyi ko xel yàlla mënoo defar suñu lépp muy julli ndax julli moom dañ ñi arkaanul islam xamsa la maanaam ponki kii moom diine juróom la muy seere ñaari baat tudd ñaari baat seere yi te fas ko taxawal julli <clears throat> natta ka woor weeru ko raj màkka bu jàppande ci yow muy waaye nag am na leneen loo xam ne lu naan arkaanul muslim ruknul bu dee ponk yi jullit nag kenn la mooy lépp nit mën na koo bañ a def ci ngànt ba mu des julli ndax boo wérul doo woor boo dee tukki wàcc na aj màkk boo ko amul wàcc na la azaka boo ko amul wàcc na la ginnaaw boo tuddee baati seere yi lenn dong moo dul wàcc di muy julli moo tax julli lu mat a fonk la lu mat a bàyyi xel la ndax moo tax ñu naan ab jullit rasulullahi nee na mooy imaadu diin képp ko taxaw taxawal nga diine waaye ku ko mab mab nga diine kon dafa mel ni loolu la waa Thiès précise jël si euh, ñu nekk nag ci yoonu waajal Touba. Euh, ñu amaat ci geneen tawfiq muy Cheikh Mouhamadul Fadil Mbacke moom Cheikh El Khadim ci la feeñ jamono ndax dañu woon dañ lay rek mën a jëpp maam Rasulullah daa dem rek mu wàcc moom wax dëgg yàlla ku déggoon wolof la xakim la woon borom xam-xam la woon ab yaaram la woon ku yërëmoon ñëpp la moom Cheikh Mouhamadul Fadil moo tax ñaare ci julli ñu ciy attiré attention ñëpp xam ne du lu nit digle seen Cheikh Ahmada Tidiane yi julli nit moom ko yàllaay borom. moo ni def leen wax leen julli tamit li muy faj daal di it ni xam leen ni julli inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala dikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun looy def julli ci jaamu yàlla julli féete ko nga xamante ni xataa yonent bi ba muy xeexee war sa julli jot yàlla dañ ko julli mun ko nu ñuy def mun ko nañu xaaj ñi nga xamante ni ñooy jàmbaar yi ànd ak yow ñaari xaaj benn benn ànd ak yow julli ñaari rakaa ci ñaareelu rakaa bi boo toogee ñeneen ñu jug ñeneen ñi ñëw remplacer leen ba ba ci xeex yàlla ni la jullil boo boo mënee taxaw julli taxawal julli ba charia leeral na ko <clears throat> lépp yonent bi alayhi salaam na ko euh, borom xam yi mag yi leeral nañ ko boo mënee taxaw taxaw taxawal julli boo mën a taxaw taxawal wéeru boo mën a taxaw ñaari tànk taxawal benn tànk euh, toog toog wéeru euh, <clears throat> ba ci tëdd wetu nijoor wetu càmmoñ jaaxaan ba ci julli ci xeef julli wàccul kenn kon mooy mooy mooy mooy benn ponk ci jullit ab moom bu dee lislaam juróomi ponk la waaye ab jullit moom benn ponk boobu mu mënta ñàkk ci moom ginnaaw tudd baari seere yi kon nañ bàyyi xel ne julli lu màgg la ci suñu borom subhanahu wa taala lu mënta bàyyi xel la te bi mooy anniversaire julli di kazu rajab di ñaar fukk ak juróom-ñaar kazu rajab mooy ñaar fukk ak juróom-ñaar <coughs> eh, incha allah ñu ko séntu yaakaar naa ni ci la ñu nekk nii ci wàccaay wi la nekk nii tawféex ji ci Sénégal amaat tamit ay aslam bi am ko ji xam ngeen ni tamit seen Cheikh Ahmad Tidiane seen Cheikh euh, Seyd Seydina Ali karamallahu wajhahu ci la feeñ jamono waaw rak rak rasulullahi boobu képp ku naan sëf tey mooy sa maam ndax moo dëkku woon ak doomi eh, Faatimatu ci la feeñ jamono ci Kazu Rajab tey bis bi ngeen ñëw tey ci la ci ci la Ali karamallahu wajhahu feeñ jamono nga xam ni kon bis bu taarix la. ñu bàyyiwaat ci xel tamit amaat ci jagle gu ci ñun senegal yi ndax al aqrabu awlaa li gën a jege moo gën a yey Cheikh Ibra dañu woon dañu woon war danaan mbay ci seywee waaye Cheikh Ibra Fall ni sey woom tax woom moo gën jege nit bala ngaa àgg ci wee da da ngay romb woowu sëñ Fallou nag mi nga xamante ni ku ne xam na ni eh, dafa waxoon ni du doom ñu doon bëgg doon nu du ma taalib bu a seex ñu ko mbàkkee loo bëgg mu ni su su sëñ Tuubaa gisoo tali seen médecine biir kon yoon wii ñu nekk la ciy jëriñoo mooy ak tali bi ginnaaw doomi Seexul Xadim bëggutu seex li mu bëggoo doon tali rek te sëñ kenn du moom ku ne xam na la ko yàlla may ci tawfeex ñëpp ay soppam lañu ña ca des ay talibeem lañu kon dafa mel ni daan ni man daan ni ñaar rek lay roy sëñ Cheikh Ahmada Tidiane ñu ne ko kanaka mu ne suuf lay roy ak Cheikh la ñu ne ko lay royee suuf mu ne muñ ku la woon. moo tax nit balaa baax di muñ sunu borom subhanahu wa taala wax wax na ci alxuraan ni maanaam martaba bu kawe kenn du ko am loolu way muñ daal di ni fa iza alladi baada auzu billahi min satan fa iza alladi baynaka wa baynahu adawatun kaannahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladina sabaru wa ma yulaqaha illa du xabdin azim nee na gis nga daraja ci kawe kenn mënu koo am loolu ndare way muñ moo tax ku la dàq muñ moo la gën Cheikh Ahmad Tijani ku la dàq muñ rek mu euh, la ni kon muñ laay ci muñ sëñ ko mu la kenn gisul lu mu def naka sudul noonu kenn déggul lu mu wax naka sudul noonu te du ne gis na ko nag ndax nee na àdduna dund na ma juróom-benn fukki at <laughs> kon lu ne gis na ko nee na àdduna dund na ma juróom-benn fukki at ginnaaw juróom-benn fukki at te doo ko ñëw moo tax ma dëdd àdduna kon doo nekkul wu nitu ko àdduna ndax nee na àdduna dëdd na ko juróom-benn fukki at dinaa juróom-benn fukki mooy bi mu leen xalifa général des mourides daal dëdd àdduna kon 45 ba 68 yëpp daal dëdd àdduna ndax Serigne Fallou kenn newul tabax bi moo ko fi bàyyi wala moo ko tabax ci barak la nekkoon daa daan fanaan Cheikh Mouhamadul Fadil da daan dikk yëpp bu koy séddalee jëmm laaj ko dañ maa séddale loo dañ maa séddale loo lim fa bàyyi ak njabotam danaka man nañ seen jambar ak seen barke baye seen barke barkebam Cheikhul Khadim ak seen taxaway mu len agolo fi waye du lu leen sëriñ Fallu bàyyil barke la len bàyyil ak jamu yàlla ak ay kàggu waaw du àllu jum leen bàyyi lu mu rek jox nako ko lislam jox nako ko Cheikhul Khadim rek jëlaat dat ni on ak talibi mom moom royu ma ji ko dul Cheikh kon ñaari ñi seex Sëñ Fallu di yi nañ leen bàyyi xel suuf ci muñ seex Ibra ci taalibe ndax yoon wii ñu nekk leen dong ci tax a jariñu mooy ak taalibe ndax yoon wi ñu nekk benn sëriñ dong la muy Seexul Xadim ñaarul ñettul kenn benn sëriñ moo fi nekk mat ci biir mat ci biti muy Seexul Xadim ku dul sëriñ Tuubaa taalibe nga ci Seexul Xadim ci biir taalibe yi nag du nekk ay jëwriñ mooy ñi nga xamante ni yar nañ leen jàngal nañ leen fañ war a teg seen tànk ñu teg ko fa njabur gu war nañu topp ngir way Cheikh mohammed al muntakami di ci jewri ni tay waaw ñu koy xooli ba Cheikh khadim radi anhu Abul Baraka mum Cheikh mohammed al Fadil ñu koy xooli ba cheikh mohammed al Fadil di ko ndokkale bu baax baax di ndokkale suñu wala suñu lépp euh suñu xarit di serigne ahmed barewi mum Cheikh mohammed al Fadil xam nañ maa ngi moom du ñaar kenn lañ euh lu mu xewle ko yeesu gis ma wala ngànt la lu ma xew def ko yeesu gis ko wala moom muy doon ngànt incha allahu rabbi ñu war a defee kasatu rajab gi ci wetam incha allahu rabbi ren comme niñ ko na def ci at yi jiitu woon kon Cheikh Ibra lay roy kan mooy Cheikh Ibrahima Fall nag Cheikh Ibrahima Fall moo àndoon ak Cheikh al Xadim ngir jëmmi boroomam subhanahu wa taala liggéeyal ko ba liggéey jafee xàll aw yoon yoon wi lañuy jariñu ci jëmm ji شيخ الخديم ليرالكو ني شيخ ابراهيم ابراهيم فالمي ديفو لوما لوما كين ديفو ديفو ما ديف نيما يالا ديف سي شيخ ابراهيم فالمي ديفو لوما لوما كين ديفو ندا فيكون ني جيكو شيخ الخديم ديكو جوخي هديه واي نك دا ما ديف نيما يالا ديف شيخ ابراهيم دا ديف ني يالا ديف شيخ الخديم نون لا شيخ ديف شيخ الخديم مونيكو يي دا ديف بينك اك njaboot gi daan dafa bëgg a leeral digganteem ak Ibra Fall mii Cheikh Ibra daan ni Ibra Fall mii bëgg na ma ba ñàkk boppam bëgg na ma ba tàggoo ki bokkam bëgg na ma ba ba ma gënal ko boroomam waxin waaye delloo naa ko ñett Cheikh al Xadim ko waay jox mu delloo mooy delloo naa ko boppam koo gis ak photom bii ak xusin bii mu photo xam nañ ni Cheikh Ibra Fall ci jamono boobu xam nañ kilifa rek moo mën a soloo nii boole naa ko ak i bokkam wala ak ñu gën ay bokkam xoolal li ko su li ko Cheikh Xadim booleel marale naa ko boroomam mooy boole naa ko boroom kon yaakaar naa ne ko koy roy ci tali bi yaa am nga roy waaye Cheikh mooy roy waaye murit ci tali bi ndax sëñ tuwaay sëriñ bi bu matub sëriñ Cheikh Rab Cheikh Ibrahima mooy taalibe bi bu matub taalibe kon képp ku bëgg aw ci yoon wi foofu nga topp ci yoon wi moo tax Cheikh Rab sëñ Fallou daan ni moom lay roy ci taalibe bi mooy ko sàll lu mukk sama baay Cheikh Ibrahima kon <coughs> euh, sëñ Fallou nag ci borom bis bi dafa waxoon ni ci Cheikhul Khadim ndax Serigne Touba Khadimou Rassoul Khadimou Rassoul du maanaam grade la li tax a jariñ ci moom mooy joxe sa bopp Serigne Fallou ak Cheikh Mouhamadul Moustapha magam jubaax baax ji ak Serigne Mor Roqee Bousso di jabaatub Cheikhil Khadim ak Serigne Massamba Mbacké di rek Serigne Touba ñu ànd daal di e, ca Jolof fa la ñuy joxe bopp seen bopp Serigne di la anhu e, ndax Serigne bi dañ leen kat maanaam fii li fiy jariñu ci cib tënk mooy ak taalibe rek ku joxe sa bopp rek ndax oma doom jublu ci Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Fadil oma jarbaat jublu ci Cheikh sëñ ma roqee bu so waaye it oma jublu ci sëriñ Masamba di rakkam li fi am li fi nekk alal yàlla maanaam ak taalibe rek moo fi jaruñu maa joxe sa bopp moo tax Cheikh Mouhamadul Fadil joxe boppam daal wax lii yaa ayuha cheikhun yaa ayuha cheikhun nafisul murtaja يا فاتحا ما كان قبل مرتجا بعت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحثى بقرق عادة بعت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحثى بقرق عادة من بعد ما اشتريتموها مني أهديتموها من قول يا أيها الشيخ النفس المرتجى يا فاتحا ما كان قبل مرتجى بعت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحثى بقرق عادة من قول يا سرين بي matub sëriñ di Cheikh El Khadim radiyallahu anhu yow mi nga xamante ni yaa cher yow mi nga xamante ni yaa ubbi woon tawfiix yu jëkk ya nga xamante ni gars yi doon nañ ko séntu doon nañ ko yaakaar doon nañ ko fëggatu ubbeekul bi nga ñëwee la ko la ubbeeku yow mi nga xamante ni yaay yaakaar ji sama njureel gii jaay naa ko jënde ko taalibe waaye njëg gi tamit ginnaaw boo ma ko nangulee من بعد ما مسرتموها مني أهديتها لكم بغير مني فتقبلوها يا ملاذ كرما لا زلتم بين البرايا عالما انا جينا بوكو جندي نجي جوخرنا لكم هدية سي فال رحمتني لي لا واخ وايجورم شيخ الخديم دادني نكو نك درجه كي غير رسول الله عليه الصلاه والسلام سي فال رسول الله لا دون sëñ Tuubaa Rasulullaahi la doon roy alayhi salaatu wa salaam waaye sëñ Tuubaa daal koy tontu bëgg ci lool falaa taalamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati ayun loolu aaya la ci suñu borom maanaam nit li mu ëmb ci ay njariñ ak i tawfiix ak i mbégte kenn xamu ko keroog sëñ Tuubaa sant ko lool nangul ko ko it nag ti nangul bu rafet sëñ Fallu motax kenn ci kilifa yi wax nañ ko niko ci shuara yi dum nasirin li diine anta amiduhu fallahu mawlaakum wa anta abidu akrim bikum min aahilin mutawadi'in jamil madaya mislukum la yujadu saxal desal di dimbali diine ndax yaay njitam yaay njit li ndax yàlla méngoo sey mbir ndax yow ab jaam nga bëgg na ko ak jam manam seigne Fallou jëm lu jo xamanteni kep ku ñëw ci mom mu teral la ndax jëmi dooma adam rek la fonkon ku fonkon borom xam-xam la ku ñëw ñu ni borom xam-xam euh seigne seigne Fallou teral la waye cheikh Cheikh al Fadil mo ayele bayam Cheikh al Khadim ndax seigne touba demoon ci Zahir Màkka bo demé ci ray mo ngi koy wax wa huwa alladhi yaqqa jismi an ziyaratihi lakin lisani lahu kal qalbi zawaaru tubaab bi moko ko waye seigne fall moko moko ko moo ko ajali wax na na ci lim wax qasatu ziyarat nat bil karimi ila zad an cheikh al xadimi wax ni maa ngi seere ji sangu tedd ba wuti ci sama bay aji def sama farata wuti ci cheikh al xadim continue hamlu ni wa hamlu waxamlu wa hamlu zaadi zaadin akbaxu kullu shay'in اذا كان القدوم على الكريم يروم يقبل ده كم جم يخل دار نحن لا سيار جون رسول الله وخلول مراد يخني بمو أقل تمت جمع الشيخ الخديم جي عندك الشيخ محمد المصطفى تامبليكو وهم مو كأقل بمو كأقل بفرق فندق لبايم سرين توبا وخني كما قد كنت تأمل يا يا خديمة به هنيت في الدار النعيمة فكن في نعمة أبدا مقيمة معا في المرتضى أه، شيخ الخديمة <coughs> مني أه، كم نكو ببيتون أه، يوسر انتو بارد يالا دوغلنا ييري جي ماتنا مبيت مي ماتنا مي جمعة جي ماتنا 63 تي لو 8 جوان سخال دي بيل تي ci àjjana ànd ak sa jëwriñ ja kama fa kun fi niamatin abadan muqima maan fil murtada cheikh al xadim kon eh, saxal di biel ca kërug dëgg ga ca kërug teraanga ja mu wax ni moom sëriñ Fallu yow miy seet yow miy séentu wala kuy seet ku mel ni sama sëriñ yaa raa iman misala cheikh yi mahlan fa lasta taraahu yow muy seet ku mel ni sama sëriñ Cheikh al Xadim te yàlla ku mel ni moom doo ko gis wax ci biir xasida gi xubbi lahu dahra yunini an xubbi siwaahu yazdaadu fi kulli xiinin fi lqalbi minni hawaahu shafku dumuuci li xubbil xadimi fardan araahu jaddada diina faataxa ka annahu qad banaahu daa si ni bëgg gi ma ko bëgg day waral samay rangoon dafay sottiku daa di ni saa su nekk bëgg bëgg di ma bëgg sama sëriñ Cheikh Khadim day dolliku ci sama xol ba waral sama rangoñ sotti ko ndax lan dafa yeesal ji na mel ni moo ko tabaxoon kan huwa qad banaahu kon dafay mel ni fa ñuy tëjee mooy Cheikh Mouhamadul Fadil daal ku bikkoon ci ñëpp la daana wax ni démb wees na te suba ndikkigul tey fi de dañ fexe ba mu jàpp kon nañ fexe ba tey jag daana siyaare ji ñëpp nag ku nekk def na ci yow ay abiyat bind na ci yow ndax borom xam-xam la woon mu wax ne bi mu siyaare ji maam Cheikh mbay bàyyi Serigne Sam ak Jili dem ba siyaare ko di ko siyaare ji maam Cheikh dani ko dani woon dani ko lillahi xawmun ida xallu bi manzilatin xallannata wa allat fi ljawi anwaaru tastaquhum kulla ardin yamduluuna biha كأنهم ببقاء am أمطار maam Cheikh dañ ni Cheikh Mouhamadul Fadil yàlla am na ay góor ci góor yàlla yi yoo xamante ni barab bu bu ñu ñëw bu ñu taxaw dafay mel ni ab taw moo jot dotti ko fu ñu ñëw tumuranke ak ñàkk ak ràgg ak xeeti bon bon yëpp tuxu fa ndax ñoon da dañoo mel ni ab taw suuf suñu wàcc rek saxal gàncax gi te rigel ko bareel ko barkel ko sëñ Fallu da daat cay teg daan ni ida laqitahum aw kunta zairahum bi yumnihim faaraxatka dahra an aw zaaru is bi ziyarati talqa kulla makramatin wa yantafi bi liqaa il faqru wal aaru mu ni am ñooñu boo boo dajeeg ñoom boo dajeeg ñoom ñooñu boo dajeeg ñoom boo dajeeg euh, ñoom wala nga ziare leen boo dajeeg ñoom wala nga ziare leen te daa daa ziare ji woon maam Cheikh euh, bàyyi Serigne Sam ak Jili Alxaaji Jili Mbay mu baax ma euh, boo dajeeg ñoom wala nga ziare ji ci seen jàppandal. mboole di nga tàqalikook mbooleem ay ay ayib dinga nga daax ay mbooleem ay ay fag ak ak ak ak ak ay ayib ndax ci daje gi nga daje ñoom da ci ngay amee lépp luy tedd nga ci ci ngay tàqalikook lépp luy gàcce ak ak ñàkk kon dafa mel ni seere ji borom gaa yu baax ñi farata la te it euh, euh, di leen taxaw farata la moo tax ñaare euh, ñu baax ñëpp wax nañ Cheikh Mouhamadul Fadil waaye nag màggal gii nga xamante ni mooy Kazu Rajab gi ñëpp di dem Touba di ko ziyaare moo ko daan defal boppam ndax daan fanaan si Daaru Salaam bu xëyee dem yendu kër waajuram kër magam ja kër sëñ Afe noonu la ko daan ziyaare tey jii Serigne Modou Mamoun nekk fa mu ko fa daan fekk kon képp koo xamante ni tànki Cheikh Mouhamadul Fadil yooyu day jaar ci dem Daaru Salaam fa mu feeñoon jamono waaye it ak ca euh, kër Serigne Modou Mamoun ndax Serigne Fallou euh, carte d'identité am yii rek la Serigne bi day mel ni boo ko laajee nga naan ko euh, foo gane jamono ñun la laajal alxuraan alxuraan boo demee yaa ngi fekk suñu borom naan bismillahi rahmaani wallaahu yad'u ilaa daari salaam wa yahdi man yashaa'u ilaa siraatil mustaqiim yàlla mi ngi woo ñëpp ci daaru salaam te gindi ñëpp ña ko soob yàlla yàlla ci bokk kon daaru salaam la feeñu jamono ñu ko kon kañ nga kañ jamono. mu ne ah ñu ne dem leen laaj alxuraan boo demee ci alxuraan sunu sunu borom subhaanahu wa taala mu ngi wax ne bismillahi rahmaani rahiim subhaana alladi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraam ila al masjid al aqsa alladi barakna xawlahu linuriyahu min ayatin innahu huwa samiul basir guddi la feeñ jamono ndax guddi la isra ñu mën dañu kon noo tudd ñu dem leen laaj alxuraan zalika fadlullahi yuti man yashaa wallahu zul fadlil azim lii daal ngëneelul yàlla la yàlla moo jox ngëneel ku ko soob mel ni ñun ah kon foo dëkk إن لا جن أقرب بسم الله الرحمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا خالد مدري نيو غم يالا تي جيف جيف لو باخ طوبى لي دك سيني فال طوبى لي دك واي نك نيجي سي كون سيني فال سيني فال لولاي كارت دانتيم ني فيرال فين جامونو وقتي لو فين جامونو ني لا تودو واي نك فيرا دك دي طوبى لي ليغي نك الذين آمنوا وعملوا الصالحات مانكو نيغا خامدني بن تي جيف جيف يون كانت لهم جنات في الدوس نزلة آه. من الذين آمنوا وعملوا صالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلة نخمد نخمد نقوم يلا تجف جف تجيو أجن رجل عندك كون شيخ محمد الفاضل كون جف لي يقول أون كو بقول نيبل كو يني بقول نيبل كون يلا يلا تفعل توفير تفعل كو نيب مبارم فين كاسة أنا جي جيس بريسيز أك دي نيو وات يجرم سين كلفة سين جورين باب دوم يا أك إكيب بينا خمد أنا يبغى نقول فيش سمعكر نيو جيل سي ay kazu rajab gi di ñaan sunu borom subhanahu wa taala yàlla defal ñu ko at yu baree baree bare te ñu yàgg ko fekke wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu